الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك السلام لا يا من مع الزلا bokki jullit bokki taalibe bisub jàmbaari lislaam di murit saadix mooy alhaaji Mouhamadou Lamine Baara moom Cheikh Mahamadul Fadal kookee nga xam ne moo daan wax ne lu fi nekk taalibe ye ko fi andi bisam bobu nak nga xamne mom lañuy wadjal mo wara nek talata di ñetti fan ci wéru mai ci ndigalul Serigne Touba nak Cheikh sidiel Mokhtar xalif général kullu murid waye ci kilifteefu Serigne Abo Mbacké mi nga xamne mo tok toog Cheikh mamadou fadel ak mbollem rakam yëpp nak ñu fas yéene wax ci turu turu ndoy Cheikh mohammedou Min bara ci njitul Serigne bara mom Serigne Abdul fatah Fallilu ak Serigne bara mom Serigne Jili Fallilu képp koo xam ne dañ laa tuddee Cheikh Mouhamadul lamine bara ñoo ngi lay wo ci bis bi nga xamne mom lañ koy defal fi ci Touba Aliya mo war doon talata ñetti fan ci wéru me Serigne Moustapha di sakku ci mbooleem turondoy ak bép julit bu ko man nga jang ñetti kamil alquran def ko hadiyé Cheikh Lamine Bara. ma ngi wax nag ci turu Seti Alhaji Mouhamadou Amin Bara yépp di len di woté bis bi nga xamne ne ni lu jitu magal gi dañ koy def muy le premier mai. incha allah ñu tudde ko suñu maam ju baax ja sëriñ Abdul Karim Mbàkke mi nga xam ne moo nekk taawu sëriñ Fàllilu ñuy woo nag sëti sëriñ Fàllilu yi nga xam ne suñuy kilifa lañ ak euh, sëti waa kër sëriñ Tuubaa yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bis bi nag sëriñ Moussa dafa wax ne liggéey bi yëpp ak woote bi yëpp mënta génn ñaari baat yu sëriñ Tuubaa waxoon jaamu yàlla ak liggéeyal yàlla jaamu yàlla ay cër koy def. liggéeyal yàlla ci bindeef yàlla yi lañ koy defee kon jaamu yàlla gi mën nañ koo tënk ci ñaari baat muy durus ak kurus liggéeyal yàlla mën nañ koo tënkal ci ñaari baat muy teeru ak terle bi kulli ixtisaar loolu mooy ñaa gi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi wax ci turu dongo yi ci ndigalu sëñ Moustapha di woo sama mbokk taalibe yi nekk fii ci senegal ak bitim réew ak ñëpp di leen fàttali ñaanu suñu jàmbaar ji Alaaji Baara Mbàkke Falilu di ci woo mbokk taalibe yëpp sëñ Baara moom wax dëgg yàlla ñun dongo yi mënuñu koo fay lu muy wax danaan dongo yi rekk fi nekk kon nag buñ demee ba di ko fàttali di ko ñaanal ah maa ngi ñaan dongo yëpp ñu góorgóorlu ba le 3 mais fii ci Alieu ñu ñaanal ko fi suñu borom yokk ay leeram. ñoo ngi woon nag mboolem ahlu njaxate li tàmbalee kër Mamoudou Hassa ba kër Sëñ Amsatu bu nu waxee kër Mamoudou Hassa nag man noonu wax kër Serigne Touba kër Cheikh Salihu kër Cheikh Abdou Lahad kër Serigne kenn jàngum alxuraan ma ak xasida loola lan gën a soxla ci bis bi ndax loolu mooy wëllëre bi nga xam ne sunu waajur wa àndoon na ko ak ñoom ca jëf ju rafet ju màgg ju tedd ji nga xam ne. sëriñ Moustapha ak mboolem njabootu si Amadou Lamine Bara gi ànd nañ ko ngir fàttali wëllëre woowa doxoon suñu digganteeg seen suñu waajur wa te suñu waajur wa waxoon na ne sëriñ Fallou mooy ke ko boole woon ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ba nam ko jiitee àjjana ba nam ko fekkee àjjana ñoo ngi ci woo booleem ahlu jaxati gépp salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñuy woo chef du village yëpp te chef bu ñu ko tuddee man cee cité kenn muy sëriñ Abdoulaye Jaxate chef du village Touba Mosquée ñoo ñëpp ñu ngi leen di woo ci màggal gi ñu màggal Alaaji Baara ñu ngi woo mbooleem waa Mbusoobe waaye rawatina nag waa Kër cheikh Mbàkke Buso ak mbooleem taalibe yi ñi nekk ci biir réew mi ak ñi nekk ci bitim réew faay maa nekk ak daayira yëpp nañ xam ni famille Cheikh ñaña Bousso ñu leen di woo ngir ñu ànd ak famille Cheikh Mouhamadul Amine Baara taxaw ci bis bi bam mu jàll ci ni mu war a jàll ci anam nga gën rafet. bis bi nga xam ne mooy bisu waajtaayu fàttaliku ak ñaanal gi ñuy defal Cheikh Mouhamadul lamine Baara Mbacke falilu di woy juróom di sëriñam bépp sëriñ daara boo xamante ni bii yaa ngi ci biir Touba ak ci biir réew mi ak foo mën a ne ak bépp jàkk ak juma ak daaree kaamil bu nekk ci biir réew mi kon mi ngi sàkkuwaat loolu ngir ñu dolli njàngum alxuraan mi ngir def ko àddiyee Cheikh Ahmadou Lamine di ko yëgal mbokk yi mu bokkal kër Cheikhul Khadim gépp ba ci kër Cheikh Ahmadul Mourtada kër Soxna Fatja ba ci kër Soxna May Soxra ñi nga xamante ni ñëpp ay bokk lañ te bokk ak Cheikhul Khadim te aju ci mbokki Mbàkke yi ak mbokki Mbusoobe yi ni ko fàttali bis bi Serigne Bachir moom Cheikh Abdoul Khader ci turu Serigne Moustapha bu loolu yëpp jàllee mu ngi yëkkatiwaat ay kàddu yëgle di ko jëmee ci ki nga xam ne moo njiitu réew mi di président de la République di ko yëgal bis bi di ko fàttali itam premier ministre Mouhamadou Boun Abdallah Dionne ak membre du gouvernement bi yëpp di ko yëgal président Moustapha Niass mi nga xamante ni mu jiite ensemble bi ak ñoom fa bokkal nekk ñëpp di ko yëgal soxna Aminata Tall mi nga xamante ni mooy président conseil économique social et environnemental ak membre conseil bi yëpp di ko yëgal nag bépp parti politique boo xamante ni bii yaa ngi ci réew mi te bu ñu ci tuddee président Abdoulaye wadd mel na ne yóbbaale na képp koo xamante ni kii war nañ koo tudd te nga yore parti politique ci biir réew mi taxawaay yi nga xamante ni moo war ci diggante Cheikh Abdou Lamine daan ko taxaw ci biir këri tarixa yi nga xamante ni nekk na ci biir Sénégal te bu ñu tuddee tarixa yi bu ñu ci tuddee waa kër Cheikh Sidi Hadj Malick ñu mën a yóbbaale njabootug lislaam gi nekk ci biir réew mi yëpp ak fu ñu ci mën a nem rawatina nag ñi nga xamante ni ñoo nekk ci bitim réew dañ Moustapha neen mi ngi leen di soññi te di leen yëgal bis bi ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañ ci yàlla yóbbu ci jàmm yàlla nañ lépp loo xamante ni luñ ci sàkku ci ay ñaan la mu jëm ci Cheikh Amadou Lamine yàlla na ko ci yàlla jotale ci barke Cheikhul Khadim mai di amee fii ci këram gi di Aliya noo ngi ñaan ku fi teew yàlla nga dugg ci sardeeb Cheikh Mouhamadul Fadal boobu nga xam ne mooy adaayixul fadail wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.